ñi nga xamante ni ñooñu agressé ñeent lañ yàlla suñu boroom jàppale nañu ak prisonniers yi nga xam ni fekke woon nañ ko ba ñett ñi xam nañ leen kenn kenn xamaguñ ko mais ñett ñi ñu agressé le vendredi 20 xam nañ seen tur avocat yi dès la semaine prochaine incha allah dinañ porter plainte porte bu ma plainte pour man dama porter plainte ngir li xeex li nekk rëbës daal di jeex avocat yi dinañ ko def te ñi ngi ñaan ay réforme am ci suñu justice ndaxte justice bi nii ñuy doxe mënta wéy mandat de dépôt illimité nga jël nit yóbbu ko rëbës mu nekk rëbës ñeenti at baneen la baneen prison nga yóbbu ko tribunal jugé ko ni ko ñibbil topp ñu la dara loolu mënta wéy yéen journalistes yi xam ngeen ci ay cas yu baree baree baree baree bari biir rëbës fekk na ma fa chambre une ma tëdd di nelaw ci guddi gi booba maa ngi ci grève de faim maa ngi gis di leen xool ñu dugal fa ab liste nuitamment di wax ni ñi nga xamante ni ñi ngi ci biir chambre bi ca depuis 2013 musuñu leen a woo enquête musuñu leen a woo enquête waxuma jugé de musuñu leen a woo enquête bind leen seen tur kon ñooñu seen dossier dafa réer ñu ngi fii ci rëbës loolu dafa war a jeex moo tax ñun li ñuy ñaan état Sénégal tabax ay prison ndax ñi nekk ci prison yi ay doomu aadama la prison jombul kenn bari na ñoo fekk rëbës dañoo xëy liggéey am convocation police dem di wuy ji convocation ba ñu leen tey rëbës ngeen di fanaane kon war nañoo tabax ay prison ndaxte ñi nekk ci biir prison yi du duñu ay bàyyi ma waaye ñu ñaan askanu Sénégal ñu taxawal ab commission national boo xamante ni dinañ ci dugal waa société defar commission nationale boo xamante ni dinañ ci dugal parlementaires yi waa député yi defar commission nationale boo xamante ni magistrats yi àttekat yi dinañ ci dugg dinañ ci nekk yi war a prison Sénégal yépp def ay enquête wax askan wi tolluwaayu prison yi loolu mënta ñàkk ndax li nekk ci prison yi mënta wéy man maa leen ko wax li nekk ci prison yi buñ ko changé wul ñi nekk ci prison yi parce que ñooñu jugé guñu leen ñëw naa rëbës ñu ni ma ki nekkoon imam bi jàkka ji def na fa ñeenti at jour bi ma ñëwee ci jour boobu lañ ko génne mu dem tribunal ñu ni ko toppul ñu la dara nga toroxal nit ñeenti at xëy ni ko demal topp ñu la dara nga yaakaar ne askan wi dina nekk ci jàmm fépp fu ñuy toroxale doomu aadama askan woowu du nekk ci jàmm wasalaam. d'autres